Les produits locaux yi man la ménagère sénégalaise bés bu court circuit la jënd produits frais tous les jours muy togg dafay am ay vitamines ay yu intéressant yoo xam ne nañ ko xam fait des nañu découvrir produits locaux par exemple nous bi des koy comestible Dans koy après nga ça fait du lait Espagne c'est du lait lait bobou, ça peut être un lait végétal qui va remplacer le lait de vache parce qu'ici on n'a pas assez de bétail de chaptel le vétiver bi ñu avons koy gongoli té ñu koy def ça parfume bien et c'est rafraîchissant gongoli ak euh, am bisabi, bi mais bi am hein. produits halieutiques aussi produits alliotiques pagni ak yooyu yëpp am mm, recette yo xamné comme ay risotto dañ ko siy def dafa am maanaa waa defe sénégalais yi bu ñu xam ñak xam bi la bu gënon xam ça va prendre peut-être du temps dina ñew mais il faut ñu génné complexe euh, consommer euh, importation bi wa defena naa suñu euh, production locale yi defena dal daal cuisinier yi niñ koy transformer loolu la nit ñi gën a war a yëg war ñu def suñu ay livre ah hein? wane produit photo leen wane démarche recette yi ak lépp ba mu ag man lan motax ma ñëw ci Bocuse d'Or bi bëggoon naa wane sam produits locaux yi yi ma doon photo ça fait des années ba paré accompagner événement bi photographier candidat yi soutenir leen bu baax Bocuse d'Or bi c'est un concours international déjà année bi cuisine bi poulet moy tam bi poulet c'est universel fait plein. Euh, sol il am géej rek am amna am jeune. bocuse d'or bi arrangé arranger bu baax produits locaux parce que dañuy jël ay thèmes concours def euh, accompagnement Légui bi première édition bi dañu un accompagnement il faut mu am produits locaux Voilà, c'est vraiment très bien parce que dinañu bibou bar à l'étranger parce que c'est un concours international. Bocuse d'Or, Paul Bocuse, c'était un grand chef cuisine. C'est à son honneur qu'on a fait ce concours. France a nos concours à Lyon, Européens, yep, même Américains, le monde entier de à Lyon pour des concours. Bi. Afrique, rek des sommes je suis Sénégal daf organisé organiser dama comptane, dama am parce que begonna lolo am yagna dihar di ndiir bi liñ koy exploité si dëkk bi doyul waaw complexe occidental bi laa bëgg mu wàññeeku.